بسم الله الرحمن الرحيم ci yàlla yërëmaa bi jaglewaa bi tabbat yada abi lahabin wa tabb abu lahab alku na te sànku na maa wa ma kasab ak la mu fàgg woon duñu ko jariñ dara sayasla naaran zaata lahab dina séndalu ci safara suy boroomi tàkk-tàkk wa imraatuhu xammalata alxatab ak jabaram yanukatu matta fi jiidiha xablum min masad nekk na sa loosam wa bu mu xillit